lu ñu métti lenn la mooy tey Kajoor ñëpp dañoo xamee ci yar ak teggin mais situation bi lu mu mel bu tey bi dafa garaaw parce que depuis 2016 depuis 2016 nous ngi top autorité, yi waxtaan ak waa hôpital pour ñu trouver trouver solution pour ñu trouver solution si ndox bi génn nii suñu ñun dañoo sonn si si ndox bi suñu papa yi ñu glissé fii di daanu kenn amatul accès si jumaa ji kenn xamul ndox lan la. ndox yi foos la seen ndox yi ndox yi bon yu yi bon si hôpital bi bëggatuñ ko fi gis ñu gisante ak ñoom def benn démarche bi nga xamante ne démarche bu pacifique la toog waxtaan ak ñoom ñu ne leen ndox bi ngir yàlla suuli laa bëgguñu fi gis ndox bi at boobu bu ñu ko waxee ñu ne amul problème ñoom dinañu dinañ fa dinañ ko dinañ ko dinañ fa trouver solution mais jusqu'à présent ndox bi ba léegi mu mi ngi walangaan moo tax Kajoor moo sës ñun dañoo sonn raison pour laquelle tey ñu gën a taal a stoppé dañoo sonn dañoo sës nag te tey ku xam kajoor kajoor doomi kajoor du tooñ déedéet ñun kajoor lañ juddoo ñun du ñu tooñ mais ku ñu tooñ ku nekk di nga ko gisal sa bopp ragaluñu si policier ragaluñu si kenn parce que suñu dëgg lañ ne ragaluñu ko euh, ndox bi ndoxu ndox ndox boobu ñoom dañ ko utiliser soi-disant que ñoom seen ndox boobu dañ koy filtrer parce que dañu am benn machine bi nga xam koy filtrer pour jël ndox boobu noonu utiliser ko pour arroser seen fleurs yi parce que boobu ñun xamuñu ñu ne leen ah, kon dafa leen ñu léegi boobu mu demee une semaine ñu fàtte fi ndox gënnul mais bu ñu demee si deuxième semaine bi ñu commencé gis ndox bi di gënn ak si ginnaaw fii am na ndox du fa gënn ndox yi commencé ndox bi si la commencé génn sax te ndox bi day xesaw ndox bi day xesaw day génn ay sax ngir yàlla ñun bëgguñu ndox boobu tey hôpital moom moo ñu war faj mais hôpital mi ngi yokku feebar si biir Kajoor est-ce que nañ ko nangu dañ see sonn ñu bëggoon nag wax si ñu wax ñu ngi tey autorité ak politicien ñu ñoo wax si fee buñ ko deful nag buñ ko deful dinañu dëgg nag.